mais da ko war a leeral. Mhm. loolu tax man sëñ bi nag en tant que taalibe ci kër gi bokk daal ko dos dama koy ñaan ngir yàlla sëñ bi prente ko. Mhm. alors yoon def euh, liggéeyam. yoon def liggéeyam alors euh, Diop nan nga jàngatee pétition bi nga xam ne euh, lancé nan ko contre ki nga xam ne nag moom mooy Macky Sall pour rek mu ñëw leeral événement yi nga xam ne amoon na fi dalee ko 2021 jàppale li nga xam ne nag moom mooy 2024 daanaka pétition boobu ban ko lancé. Euh, ci benn fan mu toll ci euh, presque trois mille signatures mhm. euh, trois cent mille mhm. nan nga jàngatee pétition bi nga xam ne lancé nañ ko. loolu damay tontaale Babacar Fall mi wax naan on a une justice dama koy mhm. tont fekkoon une justice des vainqueurs la ñu am. kon Macky Sall du génn réew mi dañ koy téye parce que si njombe yi mu def. ne ñi dee ci événement mars yi la quatorze personnes waxuma la quatorze personnes yi faatu rek haute trahison Macky Sall lim ñu def ñun ñun def ñun ñii ah. yàlla xam ne ne fekkoon justice des vainqueurs la ñu am kon président Diomaye danaan kii mu daal avion bi dugg. loolu moo am c'est la réalité man nag gis nga man Macky Sall gis nga man damaa bokk ñu ne wax naan Macky Sall bu ñu ko def dara nañ ko bàyyi. parce que damaa gëm ne lim def président Sonko def ko président Diomaye ñu koy xool mu dugg avion ci mënuñ ko téye téyewuñ ko. nañ leen jéggal parce que président Sonko jar na ko mu grève 36 jours lekkul naanu loolu c'est ut ay saagakat ñu koy saaga presque trois ans lu ne trop xeetu toroxal bu dee def nañ ko Ousmane Sonko xeetu humiliation bu ko mën a seetaan Macky di yéeg avion di dem di génn Sénégal man loolu dama ne comme kan nag Ousmane Sonko moo muñ loolu mooy gor billaay président Sonko mooy gor kon nañ ko baax loolu laa gëm mais damaa xool ñoom mais ya xam ne nii nag def na ko après ci naa ne kii moom mérité wul vie man loolu laa gëm Macky Sall suñu suuf si mu tontoñee ko ak waa këram. <laughs> te gis na ñii li ñuy def lépp dañoo amoon nday Macky Sall mooy seen nday gis na rapport bi mu commencé génn dama ne Macky dañ ko war a téye parce que il est responsable de ses exact man loolu laa gëm c'est la réalité li mu def ci njombe tong-tonge suñu suuf si jël xaalis bi ñu koy pasar pasare moo xam ko bàyyi leen ci biir tëju leen <laughs> mais loolu c'est extraordinaire dafa yéeme su sa jëb jonn mi ngi nii maire Koungheul xaw ma <laughs> uh-huh. mais ñooñu li xoolal yaay Fatou Diagne. li ñu wax tey suba. jën si dikk léegi dem ba xam ne nii TFM TFM. Hmm. ñu ngi koy acquis si xaalis bi. <laughs> jën si dikk léegi. affaire Prodac ñu ne 7TV sax ñu ngi koy acquis si xaalis hmm. nga gis ay ministres xam ne heure ñu xëy dañ daan dem xaalis Covid bi di jël 10 millions di ak seen i sëfoor dem ba xam ne nii benn seringue benn masque masque masque yi xam ne fukki dërëm lay jël ñu ko daan jaayee 2000 hmm. mais loolu c'est extraordinaire bi xeetu tooñ googu. man Macky Sall damaa gëm ne dañ ko war a def mandaa d'arrêt international téye ko man dossier Juan Branco boobu damaa bëgg ñu poursuivre ko. CPI non si Macky Sall na man li ma gëm mooy indi miri par la vie mais doomi jàmm ñu rey nag na sa que doomi jàmm ñu rey 1700 détenus nga tëj leen jaay leen doole te defu dara lu ne nga tëj lu ne nga humilier nag ku kes question nga tëj ko ku ña daa photo Rebeuss nga tëj ko Kopar Express Hannibal Djim nga tëj ko maire Amidia Wef nga tëj ko. Ibrahima Gueye dafa wax nangam nga tëj ko mooy ñaana Sonko nga tëj ko et tant d'autres et tant nit def loolu ba pare ñu ne ma ngay États-Unis di doxantu doomam dafa am gradation institut yooyu loolu ay caaxaan la man li ma gëm askanu Sénégal pétition bi na ko ñëpp si Macky Sall doit être arrêté ce système que ça il ne mérite que ça. mais parce que baadoolu weesuwul baadoolu weesuwul yow juddoo ci milliards. juddoo ci ay millions sa baay docker la woon sa yaay daan nga dund dund gu métti nga nekkoon sama sama kër maam la nekkoon kaw la sama kër maam nekkoon kaw la nekkoon baaroo la ci ndimbalu sëñ Mbacke Sow loo mu jàppale la ci Ablaye wàdd ba nga nekk li nga nekk nga nekk premier ministre ëppoo jàng senegal gënoo leen ci lenn suñu borom aar la boo laak senegal Sénégal fan la Macky sàll ji ñu lii te ñun wax dëgg def ñu lii te Macky sàll yàlla xam ne ne fayul senegal yi nañ wax dëgg gi mérite bi mu amoon mooy bi muy génne mu génn par la grande porte. mais li mu def dafa ñaaw ci toroxal doomu aadama si jaay dool doomu aadama fàtte ne nguur day jeex li suñ tubaab waxoon Samba pen na nguur gi la suñu borom jox da ko nangoo ci ay loxo jox la ko dangay koy nanguwaat ci loxo jox ko ñeneen kon soo ci ànd nañ ci xalaat yàlla loolu moo am. Macky Sall indi mérite pa man li ma gëm loolu laa gëm Macky Sall ne doit pas être libre Macky Sall doit être arrêté et fermé en prison loolu laa gëm. pétition bi nag ko ñëpp signé. mais est-ce que du du du dafa am li nga xam ne nag moo di couverture diplomatique ndax gis nga bu mu jógee fii dafa dem fële ci France di fa liggéey ak li nga xam nag moo di. ñàkk euh, fulla c'est que ñàkk fulla weesul loolu ñàkk ji ko Sénégal yi def durant 12 ans mu jiitu ñu. parce que parce que suñu réew def lu ko neex nga kon war a jariñ sa réew nga ne nga dem France pour lan pour nekk mbindaanu Macron loolu mooy problème bi cest à loolu mooy seen problème ñoom. c'est que dafa ma am métti et pitié de lui nag parce que Sénégal méritéwul loolu moom dafa déshonorer ce pays loolu mooy problème bi. dem di liggéeyal Macron kon ko xam ne yow mën nga ko mën nga ko bàyyi presque loolu mooy problème te dem ci bëgg-bëggi Macron di liggéeyal France waaye Sénégal nga xam ni moo def président de la République ba Macron xam na nag. nga waroon ko liggéey au contraire ngay dem di liggéeyal France di defaan intérêt France loolu Macky Sall gëmul am ni bettu kenn kon. ni mu hypothéqué réew mi jaay réew mi ñun nekk ay étranger français yi nekk fii di buum ak bummi mais loolu c'est une humiliation de sa part loolu tax ma ne Macky Sall il ne mérite pas d'être libre dañ ko war a tëj il la prison. ñi mu doon tëj gënu leen. mi ngi noonu alors. Euh, Diop daanaka yaa ngi ko doon junju léegi léegi muy euh, xibaar bi nga xam ni moom la ñu yoor yor xëyee tey bijou bu nga baal ma officiel ma ko comme ça mbokku internet yi mën a gis